tante Ndiaye ah, e ba fii ngay fi nit jaaree mën naa yàq yére ah yéen xale tey nii la ngeen mel daa mel lu waaye def rek ngeen sikkal ko yóbbaale sa bëgg dama nu ma sama sa morom yàlla li ma dund ci nekk maa ngi ñëw sa yaay sa yaay laa jëm. jàngiwu leen ngeen nekk seen téléphone yi rek waaye soxaan moom ànd mi ba ma ko yónnee ba tey ñëwagul yàgg na fa de. soxaat daa mën a dox soxaat daa taamu na heure boo ko yónnee daal ci taxawal bi man damaa ma doon taatu may ci mbedd muy tuur ndox ma ko fii kenn du fi tuur ndox mun daf may boole ak yow. di koy tooñ ay yaay di koy toog defoo dara. ma xàllaa xamul looy dox ci bëccëg gi ñëpp tëdd ngay wër rek. yow mii kenn réew bu ñu ko yónnee du dul dem. tante May wóoru laa boole parce que moom li mu wax nekku ci dëgg yaa nekk ci dëgg mbedd mi du ne mbedd mbuur bala waaye neex di def waaye maa koy xaar ba mu ñëw fii dama nga yóbbu xorom si sa wàññi. salaamaaleykum ana Mbène ngeen def ñu liggéey sa doom ji li ma def. waaw Mbène sa doom ji li ma li ma def war na ci wax dara dama fekk mu tudd sama ndox si mbedd mu naa ma mbedd mi kenn fi tuur na te mbedd mbedd mbuur la la moo tax may wax la ma maa war ba may wax loolu. waaw toogal ah li ah, ma def dama métti ma teel fa dëgg yàlla li ma def koo def waruma morom nekk fi ba may tuur ndox ba may tuur ndox si mbedd mi ma mbedd mi kenn du fa tuur ndox li ma wax métti ma toog du juddu barki démb Ndiaye nekk fi dama waar. ah waaw wax nga dëgg de loolu dama warul kaa wax wante xool ma li ah, ma def ma métti ma teel wa xayru jiraani inda Allahi taala xayruhum li jaarihi mu ni ki gën ci ay àndandoo ci yàlla mooy ki nga xam ne moo gën ci ay àndandoo mu waxaat ni ki gën ci ay dëkkandoo ci yàlla mooy ki nga xam te si ni moo gën ci ay dëkkandoo mu waxaat ci beneen xadis ni man kaana yuminu billahi wa yawmil axiri fala yuxsi jaaruhu képp koo xam ne dina gëm yàlla ak bisu penc ba bu mu la ay dëkkandoo gi nga àq dëkkandoo dafa bëri lool te yomb mooy li si mel si nii ngay tuur ay ndox wala ngay taal ay sébb wala nga nekk si biir kër gi di wax te xamoo ba xam am na ku feebar wala déet loolu yëpp si àq dëkkandoo la bokk kon war na ci bépp jullit muy muy sàmm àq dëkkandoom te lu am bokk ak moom te yow gis nga boo amee loo xam te seen di am na lu xew si seen kër bala ngaa gis say mbokk say dëkkandoo ngay di ko gis kon na war na bu baax ñu tàmm àq dëkkandoo. ah soxna si nga dëgg de man naka tamit si tooñ nit ñi rek laa dëkkoon parce que ma wax rek loolu laa doon def wax nga dëgg de moom. ah yenn saa yi de noonu lay demee nit ki du xam mais buñ ko wélarul tamit du mën a xam xanaa tey moom da ngay xaar ba ndëkk ba pare doo dem. ah tey tey nga bàyyi moo dem rek xam nga xale yi la bàyyi si kër ga loolu tax. ah loolu la di moom. ah xam naa ko maa ngi dem ndax xam naa ndogu léegi mu jot. waaw doo xaar ndogu. ah déedéet bàyyi ma dem rek. Ah. bu ma yaay ñëwee nga nuyul ma ko. waaw ah, baax na maa ngi déglu bu baax. Modanangi.